asalaamaaleykum mbokk yi ñooy seetaan fii ci Star TV ñu am mbégte ak kontante euh, dellu si ak yéen ci xibaaru marax yi ngeen ànd si ak Seydou Camara laata ñoo jublu ci faram-fàcce yi dañuy njëkk seeti xibaar yi gën fees njiitu réew mi di excellence yi président Adama Barrow nag ñaax na taskatu xibaar yi pour ñu moytandiku ci xibaar yi nga xamante ne rek day yee fitna fii ci biir réew mi. benn tey moom jiitu réew mi rek di président Adama Barrow tamit garal ay kàddoom nag di ñaax Gambians yi pour ñu sàmm jàmm bu dox ci diggante réewu Gambia ak réewu senegal lu jëm ci wàllu budget bi fii ci biir réew mi nag ki nga xamante ne moom moo nekk former budget directeur bi di moom du Sabally ñaax na député yi rek pour ñu bañ budget bi nga xamante ne nguuri réew mi bëgg nañ leen ko àggee ci pencam réew mi ci yokk bi nga xamante ne yokk nañ ko uh, koppar yi ñu war a àggee office of the president mu di 34 million dalasi sa xibaar yi bitim réew nag foofu la ca réewu Guinée Bissau askan wi nag ñu ngi waajal presidential election yi nga xamante rek war nañ say dugg eh, niki dimanche foofale ca réewu Democratic Republic of Congo nag ci seen tund wi mu di benn région bi ndaw yi génn nañ ci mbedd yi di ñaxtu ne daal dañ bugg a soldats yi nga xamante rek United Nations ñu ngi leen teg foofu pour ñu fesal jàmm ñu bàyyi tund bi ndaxte defuñ seen i liggéey mbokk yi xibaar yeeg yeneen xibaar ngeen teew lu ñu jublu ci faram yi. njiiti réew mi di excellence yi président Adama Barrow nag eh, ci too bi nga xamante rek mu ngi koy def di wër réew mi am na kàddu yi nga xamante rek gaarale na ko ci ab meeting bi nga xamante rek def na ko eh, ci eh, dex bi di ñaax taskatu xibaar yi pour ñu ku nag ci bépp xibaar bi nga xamante rek amaana day mun a yee fitna fii ci biir réew mi ndaxte ne na moom ak i nguuram gi nag duñ seetaan mukk li nga xamante ne day yëkkati ab fitna wala képp ki nga xamante ne day bugg a yëkkati fitna fii ci biir réew mi loolu nag duñ ko seetaan mu am fii ci biir réew mi xibaar boobu ñu teewlu si Maimouna Diouf fa Ndowen foofa sa ñaani district ca Central River Region mu doon bërëb bi nga xamante nag président bi ci boppam daal dina ko nemmeeku ci Meet the People Tour wum tàmbale semaine bale passé pour rekk gën a miinanteeg nit ñi ak tamit ñi daal di ko jooylu seeni jafe-jafe si seeni tundu war na nag bu mu demee foofu noonu sa ñaani district daal di rek jooylu ñoom ñi nga xamante nag ñooy Sénégal yi fa toogee di wax ne daal ñiy yëngatu ci wàllu bunti kaaraange gi dañ leen dee sonal waaye itam di leen bu ñu xatal bu moom nag di bi bu daal di jotee ci lii dafa daal di waxtaan ak ñoom di leen wax ne daal ñi fexe jàmm bi nga xamante nag sax na diggante Gambie ak Sénégal ñi daal di ko war a mun a continuer ndaxte nag yàgg na moom nag lii la doon ndigal ñi nga xamante nag ñooy security officers yooya moom président bi tamit daal dina sànni ay kàddu ci nit ñi nga xamante nag ñi ngi pare uh, doon président ci yoon yoo xam ne uh, waruñ fay jaar mu ne daal nit ñi nga xamante nag ñi ngi paree indi fitna fii ci biir réew mi den war a del di teggi seeni ndombal tànk ak tamit seeni jafe-jafe yi nga xamante nag ñu ngi ko bugg a teg fii ci biir réew mi moom Mohamed Nkéba ci wàllum lii di sénégalais yi moom nag wax na ne daal bu fekkee ne loolu dëgg la nit ñi dañu nekk foofu noon di bu ñu xatal ñii di sénégalais yi rawatina nag ñi nga xamante nag ñoo yore wàllu bunti kaaraange gi neen ko bàyyi ndaxte nag loolu nekkul lu rafet su fekkee ne ci wàllum lii di documents la mu doon ay kayit loolu itamit neen ko bàyyi ndaxte nag Sénégal ak Gambia benn la jàmm bi nga xamante nag sax na suñu diggante dañ ko war a gën a saxal kii di Kara Abdoulaye Cissé mu doon ndaw foofa ca ñaani daal dina sànni ay kàddu jëmale ko ci wàllum triyees bi di wax ne daal ñoom ndaw yi féetewoo foofu daal nañu rekk dàqalu bépp jafe-jafe boo xam ne nit pare na koo indi fii ci biir mi loolu nag waral na ñoom ñi ci gannaaw président Adama Barrow comme ni ko constitution bi waxee ne juróomi at la war a toog ci li nga xamante nag mooy boppi nguur gi daado Thiam Star TV. jaajëfal Dado Thiam ci Euh, former budget director bi di du Sabali doon liggéey nag ci nguur gi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekkoon euh, moom moo yëkkati ay kàddoom nag jëmale ko ci budget bi nga xamante ne nguuri réew mi ñu ngi ko waaj a àggee député yi nekk ci pencam réew mi ci atum 2020 bi moom du Sabali nag ci bataaxal bi nga xamante ne bind na ko di ko àggee euh, ministry of finance fii ci biir réew mi nag ñaax na député yi Euh, pour ñu bañ li nga xamante ne moom moo nekk 33 34 millions dollars yi euh, budget increase maanaam liñ yokka ci li nga xamante rek moom moo nekk budget buñ jagleel euh, office of the president mu di njiitu réew mi di président Adama Barrow moom Momodou Sabally nag ci kàddoom yooyu ci bataaxal bi mu ngee ñaax député yi pour ñu bañ loolee bu fekkee ne àggee nañ leen budget bi lee ci pencam réew mi daado caam lu nguur gi wala dépensoo ci atum 2020 li ni mel the finance minister bi daal dina rek joxe li nga xamante nag mooy budget boobu di dépense bi nga xamante nag nguur gi loolu la war a dépensoo waaye nag si jamono juñ toll ni ci dépense boobu dañ ci yokk lu toll ci 34 millions dalasis yoo xam ne dañ ko ci bugg a yokk su ko defee mun den ko new li nga xamante nag nguur gi dina ko war a mun a dépense loolu waral nag kii di Mamadou Sabally mu doonoon ku mu sa liggéey ci nguur gi ci li rek daal dina rek sànni ay kàddu ci lii di wax ne daal loolu nekk na loo xam ne ñu féetoo foofa ca pencum ndawi réew mi dañ ko war a bañ maanaam leen lànk ci suuf ne duñ yokk lu toll ci 34 millions dalasis si li nga xamante nag la nguur gi wala dépense mu ne moom daal nu mu ko gisee daal di yokk salaire si ñuy liggéeyal président bi loolu amul benn solo waaye leen xaalis bi nga xamante ne ki doomi aadama yi ñoo ko nekk di fay taxe pour rek seen dundin war a mun a yokk fii waaye tamit seen ñi tëddin mu doon ni mu war a nekkee mu ne loolu daal moom gisut ne xaalis boobu leen ko war dugal ci ay ñàkk fayda ak tamit ci yoo xam ne daal amul benn solo ci li nga xamante nag mooy nguur gi loolu moo war nag moom wax na ne daal dàqalu na lii waaye tamit nag ñu féetee foofa ca pencum ndawi réew mi daal den ko war a dàqalu ñoom den war a dem toog biir xam ne daal lii loo xam ne la dafay faral di indi ab jafe-jafe nag koom réew mi mi ngi ci ab jafe-jafe ci jamono juñ toll nii nag lu nguur gi war a dépensé Daada Thiam Star TV. jaajëfal daado ci am rek mbokk yi eh, benn tey rek njiiti réew mi di his excellence yi président Adama Barrow eh, ci mitin yi nga xamante rek mu ngi koy am ci too bi muy def fii ci biir réew mi eh, comme ni ko constitution bi tënkee jàpp nañ nag ci ab mitin bi nga xamante ne rek moom njiiti réew mi eh, def na ko nag eh, ci eh, ton boobu am na fenn fi nga xamante ne rek mu ngi ñaax Gambien si pour ñu daal di sàmm kóllëre ak tamit jàmm bu dox ci diggante réewu Gambia ak réewu Sénégal ndaxte ni na ñaari réew yi daal seen nit ñi ñëpp benn lañ waaye tamit dund bi benn la te tamit Sénégal ak Gambie yëpp moom jàpp ne daal benn la te kenn mënu koo xaaj ñaar dafa fekke ne daal politique ci boppam ci lañ sukkandiku ñu daal di xaajale ñaari réew yi ñu am booda ne moom moo dox ci diggante ñaari réew yooyu waaye loolee jamono jamono ju amee nag njiitu réew mi président Adama Barrow benn tey sàmmana rek ñaax rek Gambien si ah, pour ñu sàmma jàmm bu dox ci diggante réewu Gambie ak réewu Sénégal mooy mun a juuf la ñuy teewlu ci xibaar boobu. kii di His Excellency di président Adama Barrow moom nag jël na ay kàddoom wax na ay kàddu yi nga xam ne nag foofu noonu ca Dipakunda Saba Sanjal constituency foofu noonu ca North Bank Region moom nag ñu ngi ko teeru teeru bi nga xam ne nag macha allah jaaru na yoon ñi ko teeru nag nekk as supportam yi nga xam ne nag supportasam yi nga xam ne nag ñoo nekk foofu noonu nag sa Saba Sanjal kii di Gambian leader bi nag di président Adama Barrow fu mu nekk ne nag mu ngi toll ci uh, mid the people too taw bi yëpp lu ko waral yëpp nag mooy pour wax doomi Gambien si liggéey bu xarañ ak bu màcc bi nga xam ne guuram bi daal loolu la nekk di def fu mu toll nii. ba tey ci ay kàddoom nag wax na ne mu ngi ñaax ñi nga xam ne nag ñooy waa presse bi pour ñu def li nga xam ne nag mooy euh, binda story yi nga xam ne nag dina jaar yoon ndax euh, story bi nga xam ne nag soo ko bindee mu nekk story bi ngay xam ne dafay andi fitna ci dëkk bi moom nag euh, bëggut loolu noonu moo taxit nag mu ngi ñaax képp ki nga xam ne nag mu ngi binda story na nekk story bi nga xam ne story jaama la waaye du nekk li nga xam ne nag dafay andi ngiiro ak ŋaayoo fii ci dëkk bi ndax doomi Gambie bi nag amul lenn lu dul réew mi président nag loolu ay kàddoom la ba tey nag mu ne mu ngi gërëm presse bi bu baax a baax ci liggéey bu xarañ bi nga xam ne nag ñu ngi koy def booba ba léegi mu ne nag képp ki nga xam ne nag dafa bëgg a liggéey ci nguuram euh, liggéey bi daal dafa war a nekk jàmm ak salaam da ngeen a ànd si jàmm ak salaam ndax nag moom nguuram bi xamuñ leneen lu dut jàmm ak salaam. président baro nag wax na ne ci jiirum ñetti at bi liggéey na li nga xam ne nag former président Sir Dawda Kairaba Jawara ak ki nga xam ne nag mooy Yaya Jammeh defuñ loolu noonu ndax mu ne nag si njiiri ñetti at biir liggéey na li nga xam ne former président yooyu noonu defuñ toon loolu noonu nag ci diirum 50 euh, years. lii nag président Barrow mu ko waxee foofu noonu ca Dipakunda Saba Sanjala ci mitin bu mu amoon ak gaa yi ku mujjee ay doom ñu ngeen ko xamee ci Chief Malick booy moom nag wax na ne nit yi nga xam ne ñoo dëkk foofu noonu sa Saba Sadial ñoom nag euh, rafetuluñu li nga xam ne nag mooy tries jot na mouvement bi mu ne ndax képp ki nga xam ne mu ngi euh, Saba Sadial rek euh, àndul ak mouvement bii nii moo taxit nag mu ne mu ngi ñaax képp koo xam ne nag mu ngi bokk wala fas yéene bokk ci li nga xam ne nag mooy tries bii nii mu ne nag nañ fàtte loolu te xam ne nag fi mu nekk ni président Barrow far nañ ko ba pare léegi nag fu ñu toog nii képp ku bugg a mu génn rek na nga xaar xaar ba beneen five years bu jotee rek su ko defee jàmm ak salaama sax ci réew mi moom président Barrow fu mu daanele ay kàddoom mooy euh, génnam bi ci nguur gi nag loolu nag ñi ko war a def mooy ñi nga xam ne nag mooy Gambien si te nag fu mu nekk ni mu ne Gambien yu bëri bëgguñ mu génn kon nag dina ruul ba keroog ñuy dem élection su five years jotee ndax constitution bi daal may na ko loolu Maimouna Diouf Star TV News. jaajëfal a Diouf ci xibaar boobu mbokk yi su ko defee nag euh, mu ngoog foofu la ñuy tënk xibaar yi réew mi rek ñu jublu ci xibaar yi bitim euh, réew yi Euh, Guinée Bissau nag jamono ji askan wi fa dëkkee euh, ñu ngi waajal nag presidential election si nga xamante rek war nañ koy def ci biir réew moomu ni ki dimanche euh, bi nga xamante rek moom la ñu war a digmal ba looloo waral nag buñ xaymee nit ñu bindu nag jot ci voters card yi pour sànni karta ni ki dimanche daal dinañ toll ci juróom-ñaari téeméeri junney nit ci biir réew Guinée Bissau xëccoo bi nag wan nañ ne fi muy gën a méttee mooy ci diggante président bi mu di José Mario ki nga xamante moo nekkoon listam bi ah, muy wuyoo ci ah, Domingo Simons ah, Pereira ak yeneen fukki candidates yi nga xamante ne ñoom ñëpp bindu nañ bokk ci jongante yi nga xamante ne moom la ñuy def nar a def sànni carte yi nag dikki dimanche bi nga xamante ne moom la ñu war a dikmal réewu Guinée Bissau nag nee jamono ji eh, lii di politique bi nag nekk na li nga xamante ne jamono ji métti na lool te sax nit ñi ragal nañ ne fit eh, fitna dina judd ci biir réew moomu ci élection yi nga xamante rek ñu ngi si jublu looloo waral nag nee nañ li waral mbir mi mooy eh, président bi nag di eh, José Mario Vaz dafa dax euh, former prime minister bi ci boppi nguur gi waaye tamit dafa am ñaari prime minister yi nga xamante ne ñu ngi xëccoo nguur gi jamono ji ci biir réewu Guinée Bissau mu am tamit coup d'état bi nga xamante ne waajaloon nañ ko euh, ci biir réewu Guinée Bissau loolu yëpp wax nañ ne gis nañ ko euh, ci diggante bi laata ñoo jublu ci presidential election yi léegi nag kii di Pereira jàpp nañu nag moom moo jiite parti bi nga xamante ne ni ñoom ñoo ëpp toogu ci pencam réew mi mu di Governing African Party of Independence of Guinea Bissau and Cape Verde moom moo jiite parti boobu waaye nag président bi ci parti boobu la bokkoon waaye dafa mujje am problème ak parti bi gannaaw bu mu daxee prime minister bi ci atum 2014 léegi nag dafay dem nekk independent candidate ci biir li di réewu bi bissau am na tamit ay candidate yi nga xamante ne jàpp nañ ne ñoom it nekkoon nañ prime minister ci biir réewu Guinée-Bissau ah, bokk na ci former prime minister ah, mu di Omarou Sissoko Embalo eh, ak ki nga xamante ne rek moom moo nekk Carlos Gomez Junior ñoo ñëpp wax nañ ne ay candidate lañ ak kii ñuy wuyu eh, ci Nuno Nabiam nuno nabiyan nag jàpp nañ ne xet bii ñu gën a ràññee ci balanta yi ñoom ñoo ko dooleel ci biir réewu Guinée Bissau niki dimanche nag la askan wi dem ci bérébu sànneekaay karta yi su ko defee ñu tànna président bu leen di jiite ci réewu ak Guinée Bissau foofale ca réewu Democratic Republic of Congo nag ci tund bi ñu gën a ràññee ci Beni region bi euh, foofa nag jàppa nañ ne dafa am congu bi nga xamante ne def nañ ko foofu ñi def congu bi nag ñoom jàpp nañ ne ñoo nekk Allied Democratic Forces yi mu di ADF forces yu nekk ci biir lii di réewu Democratic Republic of Congo waaye nag ñu nga faaxee ko ci euh, lii di réewu Uganda euh, ndaxte kat jàpp nañ ne place boobu waral na ñi di United Nations yónnee fa ay ñu daal di fesal jàmm waaye tamit aar tund bi ak nit ji fa dëkkee waaye ci jamono ji nga xamante ne cong bi am na rey nañ fa lu toll ci juróom-ñaari nit mu am ñaari soldaar yi nga xamante ne gaaj nañ leen ci song boobu loolu moo waral nag ndaw yi ci tund bile mu di benn région bi foofu la ci réewu Democratic Republic of Congo génn ci mbedd yi nag di def doxam ñaxtu di wane nag ñoom liñ bëgg jamono ji mooy United Nations seen soldat yi ñu yóndee foofu pour ñu daal di fesal jàmm daal ñu bàyyi eh, seen tund boobu ndaxte ñooñu nekkuñ di def seen i liggéey nekkuñ di aar tund bi aaruñ nga xamante ne nekk askan wi la ràññee ci ñii di MONUSCO waaye tamit ñaax nañ eh, ñii di soldaaru réewu Democratic Republic of Congo yi ñu bàyyi seen tund boobu ndaxte donte ñu ngi fa waaye mënuñoo jeexal fitna bu nekk foofu foofale ci réewu South Africa South Africa nag jamono ji ki nga xamante rek moom moo nekk seeni eh, député bile eh, nekk ci pencam eh, réew mi bokk ci ANC parti bi moom nag jàpp nañ ne jamono ji am na ay tuuma yi nga xamante ne moom lañ yëkkati lal ko ci ab ndoddam di wane ne daf doon yëngu ci lu xeetoog wàllu njuuj njaaca moom député bi nag mu ngi wuyu ci bongaan yi bongo bongaani bongo nag jàpp na ci jamono ji nga xamante ne ni kii di eh, former président bi di Jacob Zuma mu ngi jiite woon réewu South Africa moom moo nekkoon seen security minister bi maanaam jëwriñ buñ dënk lépp lu xeetook wàllu kaaraange bi eh, ci biir li di réewu eh, South Africa mu jënteel bi nag mu ñëw nekk député am toogu ci pencam réew mi waaye ci jamono ji ñu nekk nag nee nañ dafa am li nga xamante ne moom lañ ko sulil di wane ne ci atum 2017 dafa am ci njuuj njaaj bi mu doon yëngu ndaxte am na investigation maanaam gestu yi nga xamante rek commission buñ dënk lépp lu xeetoog wàllub gestu njuuj njaaj ci biir réew South Africa ñu ngi ko doon def daal ci yooyee jamono la ñaax ku jiite woon commission boobu euh, pour mu daal di jël liif noppaleku loola yëpp pour yàq gestu yi nga xamante ne ñu ngi ko doon def ci njuuj njaaj booba la léegi nag jamono jii nee nañ loolu lañ ko sulil ci biir réew South Africa euh, te nag jamono ji arrest nañ ko waaye gannaaw buñ ko arresté nag béel nañ ko gannaaw buñ fayee lu toll ci juróomi junni ci kopparu lii di réewu South Africa waaye nag nee nañ ni ki weeru janvier euh, fanweeri fan ak yi séntu nañ ko ci etu attaquant yi pour mu uyu ci tuuma yi nga xamante ne rek tuumal nañ ko ko ci réewu South Africa mbokk yi mu jéem teeloo xibaar yi fii ci biir kër gi Star TV am mbégte ak kontante ci seetaan bu euh, rafet bi jaajëfal Mariama Koma ci caméra bi Aliou ci euh, machine bi jërë ngeen jëf wasalaam